dikkati na mbaadu APR nag mooy doon nagu sarax gi ñu fas ko yéene tongtongee fa yàllaaxu 2024 turbine yéen a kaay ci kàddu njoogu Cissé naan man ma ne la APR ci boppam boo moytul day la leen nar a dal 2024 du sedd wala xam nga 2000 yàggul ca congrès sans débat ba ak Ousmane Tanor Dieng nañu ko tabbee ñoom Moustapha Niass Djibo Leyti Ka daal di démissionné moom Moustapha daal di fi taxawaloon AFP soir laa leen di nettali Djibo Leyti Ka taxawal URD ñu roñ roñi nag daal di ci élection présidentielle waaye la a doy waar mooy Abdou Diouf dafa daal di ñàkk nguur gi maître Abdoulaye Wade daal di falu bi njëkk koon opposition bi daal di am ndam ci réewum Sénégal ci présidentielle Ndiogou Cissé ci tribune yéen a kaay naan ndaw yi teg leen six minutes li leen histoire ngeen méngale ko nag ak APR bii ci 2024 xam nga bu ñu nee deuxième tour la nar a dem 2024 ñaar fukki ak ñeent gannaaw bi taarix gannaaw ba nga xam ne lii am na diggante Moustapha Niass Djibo Leyti Ka Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla Seck Abdou ñu ne biir APR tabb nañ Amadou Ba Mouhamed Talla jonunu jameet moom doomu Gosaas si ne bokkatuma maam booy jaaw borom koldaane baay baay Ali Nguy Njaay borom lingeer ne leen xàll naa sama bi yoon njoogu Siise naan leen ko xalaatul 2000 day lu la neex defal ci miin réew te bii sax waa APR ñoo ni président ma Macky Sall tànnal ko tànn ñu ànd ak moom waaye tey jii ñoom ci boppam seeni biir ña ngay daal di xeexoo gis nga buñ dof dofloo ba dem deuxième tour maanaam daal di fexe daal ba ànd ak opposition bi ne dañuy demaat waaye APR dana ko réccu wala l'observateur naan ko déet fi ne kay waa APR ñi ngi def ci suuf jëf joo xam ne bés bu sottee ma ni la benn candidat bi la ñuy daal di ngemb mooy Amadou Ba kenn mënu ci lenn moom candidat boobee di Amadou Ba l'info yéene kaay naan maan mi ngi ci offensive bu am solo moom Amadou Ba ngir joyanti réewum Sénégal le soleil yéene kaay naan en tout cas benn milliard ci xaalisu réew mi moom Amadou Ba daal dina koy def nag ngir ñu daal di ñàkk jur gi le point yéene kaay naan maan Chérif Assane Sagna ca Sigicoor ma nga dajale ndaw ña ñoom it ngir ñu daal di tabb Amadou Ba Ibrahima Ndiaye coordonnateur task force APR ca Kër Massar en tout nga xam ne fi mu ne ñoom ñoo daal di gédd ne dañu jël seen yoonu bopp ñoo tane sax ña nga xam ne dañu ne patt fi mu ne ndax nag ñi ne patt nañu génn xàmmee nañu leen fi mu toll nii tas tasaare APR la ñu fas yéene te duñu ko nangu tey duñ ko nangoo la critique yéene kaay naan maan en tout cas ancien ministre moom doon ko ci réew mi daanaka nag mooy jaagar jaagari wutu yoonu pale ba ancien premier ministre jamonoy Abdoulaye Wade nee na moom it candidat la source a naan maan réew mi day daanaka comme daral ak seeraas waxaale daal moo fi am ba ci assemblée nationale bi député yi man la diggante fukki million ak juróom ak ñaar fukki millions moom lañ fas yéene jébbal ñenn ñi ngir ñu pare na ñenn ñi genn soxna ak genn suwaay soo xam ne conseil constitutionnel moo ko téye woon 2019 ña ngay waxaale assemblée nationale te kenn jiitewul waxaale ba ku dul ñaari député opposition bi nag tribune yéene kaay naan maan waxtu woowu ci département bu Mbour daal dina ñuy taxawal li nga xam ne ñu ngi ko duppee Radel Radel nag daal di lëkkale ña nga xam ne ñoom ñoo di élu yi nga xam ne ñoo nekk ca département bu Mbour réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local la maire bu Malicounda Maguette Sène daal di koy jiite bëgg-bëgg geeg sabab gi leen dong la daal di xalaat nag ñoom acteur yu décentralisation bi naka la ñuy fexee ba joyanti candidature bu Amadou Ba bi weesu ma ni la acte trois de la décentralisation daal di indiwaal ay réforme loo xam ne nag ñoom maire yi daañ ci gis seen bopp mu jëm ci seeni salaire ba ci seeni retraite jëm ci adjoint maire yi ba ci conseillers municipaux yi seen ëllëg ñoŋ màgget seen naan président Macky Sall def nay jéego ak acte trois de la décentralisation 2013 waaye nag cadre bu yees bii ñu taxawal danañu xeexal ñun ñii nga xam ne ñooy maire yi waaye tam dina ngémbul candidat bu APR bii di Amadou Ba ngir élection présidentielle bii mu daal di ciy am ndam njoogu Cissé naan kon am ndam li dana métti wala yéen daal ndam li moom bu leen ko wekk mukk ci deuxième tour ndax bu ngeen ko fa wekkee ma ni la di ngeen narmeelu seen digg ni karaj moom wal fu ko di jee naan opposition bi boo moytul ñu narmeelu di seen candidature yi daal di sakkan lool lii boo moytul man la buñ ci jógulee mu doon ab ndëgg sërëx ci ñoom mu mel dañuy xàllal yoon Amadou Ba naan kon jëlal réew mi ko jébbal le quotidien le quotidien naan Ousmane Sonko moom daal dina ñuy faase turam ci liste électorale yi ñaar fukki fan ci weeru sàttumbar bi la ñu jébbal notification bi mairie bu Dakar Plateau l'enquête quotidien naan man plan B bu Pastef day mi ngi bëgg génn te Guy Marius Sagna lay wuyoo daanaka mosu ñoo wax ci candidature boo xam ne day daal di wutu Ousmane Sonko waaye Guy moom ma ngay génn ndànk di dox soxlaam ak di wax bëgg-bëggaam Cheikh Thioro Mbacké député ne seen candidat kenn la te Ousmane Sonko lay la direct news ne ma parti démocratique sénégalais day ma nga nar a ñaar donte nag daal dina ñuy woote ndaje goo xam ne daanaka diggante Thiès Kaolack Louga Géejawaay Pikine Bambey Goudomp Kër Massar Fatick Saraya Parcelles Assainies Thiès Ziguinchor Diourbel Malem Hodar Touba mbuur ñépp fa daal di teew waaye Saliou jëng ci boppam la ñu bëgg mu daal di leen di abal juróomi weer des ci présidentielle bi Karim sa Wade nekkul sax ci taxawaayu ñëw yéene kaay bi naan maan terewul ña ngay yeesalaat parti bi ngir ëllëg daal di baax vox populi naan maan candidature yi mel ni tulleeg màlle ci réew mi naan nañ ko am na ñoo xam ne bëgguñu sax doon candidat de waaye xam na ni seen candidature bi dina tax ëllëg buur soxla leen te xel ak ubbi ay buntu moo ko jur 24 heures yéene kaay naan man fi mu ne moo tax sénégalais yi jëpp nañ leen léegi jaratul diplôme ak jaar-jaar bu kawe ci université yi ku jog tey jii dagat baatu sénégalais yi ni leen mën naa leen jiite loolee ma ne la dem ba tàng xoluk ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi réew mi ci boppam dañoo dem ba xam ni politiciens yi nag dañoo yeb sénégalais yi ndax nag dagaanatuñu baatu askan wi la ngir jàppale leen waaye seen intérêt bopp la ñu gis fi mu ne kaay naan man conseil interministériel bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu njàng meeg njàngale mi syndicaliste yi de ñi ngay dal ci kaw gouvernement gi ne dañoo wane lii ngir lëndëmal xel yi syndicaliste sii daal di ne ma ne la jafe-jafe yi nañ ko saafara ndax ñu ngi ubbi suñu gët di daal di xool lépp loo xam ne doxul daañu ko kaas yéen kaayub dee média bi naan man ca géejawaay caxat caxatee wàlluk suuf day moo fa daal di am lotissement site bi ñu duppee béy di askan wan nee ñu dañoo fas yéene caxat caxatee seeni suuf laas yéen kaay naan man tong suuf day daal dina amit ca mbuur kaat scandale xam ne bés bu yeewoo ci réew mi day njaw dina desu xambin libération yéene kaay naan man njaw a nga desu xambin te ministère des sports ak Gris Bordeaux Sayer Seck mi ñu ne dañoo falsifié seen signature ñu defi décharge yoo xam ne yëguñu tinuñu vox populi naan man ña nga ca waajtaayu gàmmu ga lu toll ci ñetti junniy takk der ñu fas yéene leen teg ci gàmmu gi ay drone ay caméra police bi daal di ñuqi ay moyen ñu dëgër këcc ngir gàmmu gi amu kaaraange booba réew mi quotidien ma may xamal ne suñu ministre de la santé day nga woon ca mbootaayu xeet ga moom Marie Xemes Ngom Ndiaye sàkku nag ñu daal di taxaw askan wi rawatina dëkk yu nekk ci dénduk Afrique ñu daal di xeex wopp yi nga xam ne du wàlle te dëgg-dëgg mi ngi jeexal ñu bari fii ci dénduk Afrique mari Xemes ngoom Njaay ne naam senegal mi ngi defi jéego waaye ñoom jabet hypertension ak xeet gi nga xam ne du wàlle mi ngi bëgg teg sénégalais yi coono wala l'observateur naan coono góorgóorlu fi mu ne mooy ubbi teg l'école yi fourniture yoo xam ne cher na lool te banlieue ba day boo fa demee bari na l'école yoo xam ne fi mu ne dafa daal di tooju ci ndox ba tey ña nga naan ubbi tey jàng tey